Amadou Ba ci Touba campagne yi wërngalam bi mu loon ko département bu Mbacké mboolo mu takk di ko xaar di h waaye bi uneur jàpp deux heures la daal di agsi ci permanence bi ci Mbacké mboolo mu takku toog di ko xaar xaddi wuñu benn yoon honorable Baye si la ak ñii ñu tabb ci liste bi yëpp daal di koy dalal gannaaw xaar bu yàgg am nga ay góor am nga góor yooyu dëpp nañu te bàyyiwul kii nga jiital ak li mu def lépp gis nga Cheikh Abdou Ndiaye. waaye moom Amadou Ba mu tàmbali ay kàddoom ci sant Serigne Touba ci Mbàkke waaye gërëm honorable Baye Alla Sylla ak mboolem ñi nekk ci liste bile. maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di ci jiital seen responsable yi sëñ Abdou mi mi ngi nii sama wet sëñ Alla Sylla suñu tête de liste mi ngi fii taxaw sama wet dama leen di nuyoo di sant di ziara. sunu wayjur bu tedd bi fi nekk muy sëriñ Touba sëñ Muntaxa yàlla na fi yàgg te wér incha allah bu ñu demee ba Mbàkke dinañu waxtaan def ko ci politique mais li ma bëggoon mooy masawu leen baalu leen àq ndax yàgg ngeen fi yéex naa ñëw benn parti côté bi sax jiitu na ma fi ñëw kon xam nga ni ay yitte rek moo ñu téye woon yitte politique rek dem ci dëkk nit ñi am ci yow cofeel bëgg saafante ak yow bëgg laa nuyu foo waroon def cinq minutes mu far doon trente minutes bu trent minutes yi baree rek muy daanaka bëccëg bës bu jeex walla guddi gu jeex kon maa ngi leen di sant yéen ñëpp di leen mastaw di leen baal di leen ba bàkke di bi liggéey di sant équipe bi nga nekkal yëpp yéen ñi nekk ci liste départementale bi yëpp leen di félicité di sant. ñu daal di wëyal bi ci biir Mbàkke foofeet fu mu jaar askan wi di saafonteek moom ñu daal di wutali ji ca diggaan ci xalifa Cheikh Mouhamadou saw mu daal leen di dalal mu yëkkati fa ay kàddu waaye moom xalifa bi fësal ak jàppaleem waaye am solo nga xamee ne dëkk bii di diggaan daal di na koy am te ñu fi mas a nekk njiitum réew ñëpp daal di nañu jaar ci bile dëkk. waaw man lan la daanaka mu ne garde du département. département. nga xamante ni moom nga jiital ci liste département bi. ko ku am njëriñ la ci Sénégal. ko ba njëriñu Touba. ku am njëriñ la ci gox bu nekk. nee na bi nga xam ne moom la am. yàlla bu yàlla tas yaakaar bi. loolu fi nga toog tey. Senghor jooju woon. président Senghor toog na fi. Mamadou Dia jooju woon. président Mamadou Dia toog na fi. Abdou Diouf jooju woon. président Abdou Diouf toog na fi. Macky Sall jooju woon. président Macky Sall toog na fi. moo la foti bëri Macky Sall ak nee na ñaati yoon la président Macky Sall ñëw fii. ñu tuddee ko 3 heures jàmm. nee na bi yoonam bu njëkk 3 heures du matin. ari ko nee na mu ñëw fi. moo wënde Babou. nee na mu ànd ak. Sousa euh, euh, Cissé Lo. nee na non. nee na kon nag. nee na ñaan. muy ñaan. yàlla wér. am na ceeb na loolu nee na wolof am na lu mu lépp. bañ a euh, bañ a ragal péete alliance. nee na. a wërsëg. kon nag ñu ne ñu daga daga. Ah, Baye Alla Sylla. moom mooy jiite liste département. bi. Cheikh Abdou mu ngi ci liste nationale bi. bi. waaye liy rafetal liste nationale liste départementale. neen luy rafetal liste nationale liste départementale la. nee na muy nit ku baax. nee ku ñuy yàgg jàppale. du sax lim ñuy jàppale na lu tul nii lu ñuy jàppale jëfam si biir Touba. mën nañ si seede lu bari. am ñoo xamante ni ragal la. am ñoo xamante ñàkk wóolu la. nee na ñeneen leneen ak leneen lu ci rax lu bari. président Amadou Ba nee na yàlla fépp la nekk. nee moo tax ñu ñëw fii wut ci yàlla fii. sàkk fii ñaan. foofeet ca digaan fa la ñu defee seen déclaration moom honorable Bayalla Sylla xamle ni moom kat du koy dagg kóllëre te digganteem ak Amadou Ba kóllëre mooy laka lal waaye leeral ni wax ji nga xamee ne ñoo ngi koy jaabaa jonge muy intercoalition bi nga xamee ne ñoo ngi koy wax ci diggante jàmm ak njëriñ ak takk wàllu ci département bu Mbacké mu xamle ne loolee kat du lu fii ci département bu Mbacké jàmm ak njëriñ moo fi samp dañoo bëgg a jàppale takk wallu ma ne loolu du dëgg déclaration bi nag dama bëgg mu jàll fu nekk dañu noo boole woon moom gis nañ ci moom ngor ngor googu nag lañ jàpp Amadou Ba moom lan dekk suñ kanam moom jëf moom Amadou Ba yëkkati ay kàddu xuus ci programme am bu baax a baax ak yéene ji mu am ci département bu Mbacké Mbacké moom du ko ku fi ñëw man barkelu laa fi gën a bëgg a def kay politique moo tax bi ñuy dugg ma ne leen musique beeg lépp loo xam ne Mumbaay la wëri leen ñu daje ji Touba daje ji ci ci ci ci corniche bi mais bu bu leen romb booru jumaa ji ñu fa def yenn Mumbaay yoo xamante ni dëppewul ak li nga xamante ne moom la ñu bëgg ci dëkk Touba nag ak Mbàkke amay jafe-jafe ndax tey jii ñu Mbacké mooy premier département du Sénégal kon Mbacké moo jiitu Dakar ci wàllu population waaye li am Dakar buñ ko defaloon asaka amagul Mbacké kon rattrapage war na fee am waxoon naa ko fi daaw Touba war nañoo sant sëñ Touba te loolu bokk moo andi nit ñi fii foofu la yàlla jaarale nit ñi mu fi andi mooy ci liggéeyu Sëñ Tuuba dëkk bi dañ ko war a taxaw dëkk bi amul ndox dëkk bi bari na ndox amul ndox mooy ndox mi ñuy naan daaw ñëw naa fi inauguré fi benn forage ñu ma waxee depuis 1960 mooy premier forage bu fi génnee ndox mu neex dama ne Sénégal sunu plan yi ñu amoon ak sunu programme yi ñu am war nañ ko soppi kon war nañu fexe ba Mbàkke donc day ëmbaale tuuba am ndox mu neex kooku ñu ngi ci doon liggéey Cheikh Abdou xam naa ni am na lu mu ci xam moom mi nekkoon député ñu ci doon liggéey bu baax a baax a baax yaakaar nañu gouvernement bi dina ci taxaw waaye bu ñu ci taxawulee bu ñu amee majorité assemblée danañ ko def. Touba yi bari na ndox gis nañu nawet bi def fii mbënn mi bari fi lool loolu lu ñu war a saafara am na lu ñu fi tàmbali woon dëgg la waaye liggéey bi juróom-ñaari weer yi passé dafa te it. war waruñu ko fee yemale ndax Touba dafay màgg te sancaan yi kenn urbanisé wu ko dañ ciy dëkk kon liggéey am na foofu waxuma nag courant waxuma ndox waxuma li nga xam ni xale yi dinañ ko war nañ ci liggéey parce que boo nit ñi dajee fenn mbay war na fa am napp sa sàmm war na fa am napp xam naa ni dana xaw a jafe fii waaye artisanat yeneen liggéey yi nga xam ni tourisme mën na développé ci biir Touba ndax barke bi am na fi lii xëy di ñëw Touba bés bu nekk lépp lu jëm ci tourisme ak ay restauration ak li ànd ak lu mel noonu war na mën a développé ci biir Touba. loolu incha allah bu ñu demee assemblée Cheikh Abdou ak Alla Sylla ñu nekkee ma.